Euh, ba tax askan wi charrette la ñuy mujjee jël ñu ngi fii sax ay nit ñoo xam ne dañoo jël charrette ay pèlerins yoo xam ne dañoo jël charrette waaye dañoo am seeni oto euh, sëñ bi tur gi naka la. man Serigne Abdou Seck laa tudd. Serigne Abdou Seck. waaw maa dafa mel ni da ngaa gaare fële sa oto. waaw damaa gaare sama li ci station bi. ah lu tax dem sama kër Serigne. Mhm. mais ñàkk a a dem sama kër Serigne ak sama oto. Mhm. moo tax ma gaare ko ci station bi. Mhm. jéggi pour dugg ci séeréer yi ndax mu gën a mën a yomb. Ah, fii ñaata ngay fay fii ba fi dem. fii ba fi may dem 200 francs lañ koy fay. ñu ngi ko daan fay uh-huh. gi moom moo ko woote uh-huh. léegi ñu fayee ko deux cent uh-huh. amul problème aha d'accord kon uh, sëñ bi yow tamit fooy dem ak uh, naka nga gisee transport uh, transport bi ak charrette yi ak fas yi ah macha allah wax a a dem ñaata nga fay ah 200 francs kon jàpp nga ni moo sës quoi balaa balaa ngay sinon dangay dox dox ba ba sonn. voilà d'accord borom charrette bi nag ñu laaj ko moom tamit liggéey bi démb ba tey wala ginnaaw barke barke démb ba tey liggéey bi naka la demee sëñ bi tur bi naka la. waaw ah, Moustapha yow moom yow bi ah. waaw Moustapha naka la liggéey bi demee boobu ba léegi. waaw sant yàlla rek ñun kon business bi mu ngi dox xaw ñaata va et vient nga mun a def ci journée bi. aha aha charrette bi ñaata nit la mun a jël ñaata client la mun a jël. man moom sama fas laay xool rek sama fas attendre rek. aha à peu près 5 6 personnes 10 personnes wala. cinq non 5 5 rek. 5 rek ah ku nekk fay 200. waaw aller retour da ngay am client. kon business bi mu ngi dox ak magal.